Mbappé mi la nu koy doore mi nga xam ni Euh, journal yu bari wala boog jàpp nañ ne dafa dem Real Madrid gi signé contrat waaye loolee amul ay leeral ci Aladji Malick TV Mbappé bu fekkente ne day dem Real Madrid benn du ànd ak Achraf Hakimi beneen bi mooy ka nga xam ne mooy avancement mooy xaatim wala mooy waxaale bu juboo ba nga xam ne euh, Karim euh, wala boog ba nga xam ni ki nga xam ne mooy Kylian Mbappé day dem jël big bi rek signé waaye loolu léegi amagul àggagul foofu te waxaale amul dara amul restaurant la demoon di fa lekk moo ki nga xam ne mooy doomu Maroc Sadio Mané ma nga xam ni FC Bayern bëgg na ko soxla na ko dóor na benn facture ci kanamu janga xam ne ñooy goney Euh, Liverpool yi waaye ba léegi tontu amagul waxtaan amagul dara amagul loolu lépp ay euh, rumeur la yoo xam ne euh, gars yee koy sànni ci réseaux sociaux yi ak ki nga xam ne mooy Erling Haaland mi nga xam ne daanaka jeex na tàgg ko ne Manchester City yi nga ca biir waabale nañ lépp jël nañ ki nga xam ne mooy Erling Haaland ma nga xam ni moo nekk ca Dortmund ak ki nga xam ni mooy Sadio Mané distance bi nga xam ni moo ki nga xam ne Karim Moustapha Benjama am nañ ko Karim Moustapha Benjama moom nga xam ne boo xoolee ci statistique yi li nga xam ne moom la joxee ndagul kii di Karim Benjama moo xaw a am légère domination ci kaw uh, doomu sénégalais bi nga xam ne uh, ma ngay doxal lu am solo waaye nag affaire yi jeexagul ndax des na ay coupe ak i ligue des xam ne